bëgg a wax ci lu tuuti rek ci liggéey bi mooy site bii nga xam ne ñu koy def fii bërëb bii dafa nekk bërëbu ziyaarukaay bërëb bi dafa nekk bërëbu historique nga xam ne ñu bëri ci képp koo xam ne administration coloniale nga bokkoon wala nga bokkoon ci njabootu Serigne Touba. fekk nga ko ci bërëb yi ci loo xam ne seq nga ko ak Serigne Touba soit administration coloniale nga ko doon doxal soit nga ko doon doxal loo xam ne dafa bokk ci yoon bon bërëb bii dafa symbolique rawatina nag ñun suñu maam am ci cër ndax waxuma la rek encadrement bi nga xam ne encadré woon ko moom ak ay guerrier salaamaaleykum waaye relation bi mu amoon ak Serigne Touba ba ñu mun koo nangul mu ñëw nekk fi ak Serigne Touba di aar kër gi ngir saay-saay yi nga xam ne naroon nañu jël ay wàllu am di ko suul ci kër bon bërëb bi bi nga xamee ne waxtaan nañ ci ak sëñ Abou Mbacke mu jox ñu ci ndigal. neewoon nañ ko dinañ ko def bërëb boo xam ne ci suñu yéen lépp loo xam ne ci wàllu ziar la jëm ak ci wàllu taar ci bërëb bu mun a xëcc ay nit dinañ ko fi investir ba def ko képp koo xam ne taalibe la nga xam ne dangay dem Touba di ziare soo jógee Touba ci jumaa ju sell ji di nga ñëw ci bërëb di ziare ko

dinañ fi def ay site yoo xam ne nit mun ñëw toog ñu koy woon histoire u bërëb histoire u yoon di ko xamal lu bëri ci diggante Serigne Touba ak chef coutumier yi ñu fi nekkoon ak chef religieux yi fi nekkoon ak rôle bi nga xam ne ku ci nekk ci ñoom bi nga ñëwee fekk Serigne Touba fii ci bërëb bi moom nga doon saafanteeg Serigne Touba. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na Serigne fii bisu gàmm yaqin yi ilal jinaan béy fukki la fukki fukki euh, xasida boobu fukki béyit la ak juróom-benn bërëb bi ni ñu koy fukki koñ ak juróom-benn la nar xam ne même soo koy euh, wër di ko

te loolu yëpp ay mulaay lay doon loolu moo tax ñu jël suñu temps ndax dañu bëgg bërëb bi mu sax fi ëpp juróom-benn téeméeri at nga xam ne incha allah suñuy së suñu ñëwee day ko li dem ci biir yëpp nag commandé nañ ko ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla eggal ko ci jàmm ak salaam li ci nar a war a nekk ci ay programme yu ñu ci def ndax nekk rek bërëbu ñëw ziarukaay dem sa yoon. dafa nekk bërëb boo xam ne tamit nit fi def ay jumtukaay yoo xam ne soo fi ñëwee mun nga fi jàng euh, histoire Serigne Touba xam-xam sax mun nañ fi jàngale ay daaraak ay lu nekk di fi def ay conférence mu nekk attraction boo xam ne tourisme religieux bi ñuy wax ci biir Touba bërëb bi mun na leen ko indil incha allah kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne bis ñi fas na yéene naa ko ànd ak yéen ñu liggéey ko ba mu sotti sëñ Muntaxa bi ñu demee ba wax ko ko daf ko te moom ci boppam moo jël engagement ne bés bu sottee incha allah moom moo ñëw def inauguration bi ak ay rakkam ak waa kër Serigne Touba ñu inauguré ko teg ko ci loxoom te loolu bugg naa ñu ñii ñu ànd ci liggéey ko teg ci loxo.